joxe Ngouda kooku yaakaar na ne il est il il souffre d'un mot anémique et il est en même temps amnésique parce que moom ci sa jëppam vaar bi def koo fenloo mani daf doon manipuler l'art de manipuler nag daa am ay étape mais parfois tu te brûles les les les yeux moom bu waxee ne professeur Ngouda Mboup ah, moom mu mu waxee ne di si benn bokk dafa irrecevable parce que mali Gakou dafa demoon amoon surplus waxu dëgg waxu dëgg. parce que Malick il a fait il avait fait deux conférences de presse première conférence bu mu ko defee bu mu demee am ay doublons plus de 2000 doublons ñu ne ko motle woo demal utiwaat ay parrainage mu dem motlewul parrainage yi ko laajoon article 6 day prévoir les maxima et les minima du parrainage le maximum et le minimum parce que loo ci en phase de vérification dañu xool ñu ëppale nee nañ la lépp loo xamante ne nombre de parrainage bu ñu laajte soo fa yéegee lépp lu ci teg c'est nul et non avenu li lañ ci wax lépp lu ci wàññiku da ngay dem wuti pour ñëw combler su motee nga dem su motul doo dem lii la y a photo kooku noonu c'est un intellectuel c'est un congrégationniste un intellectuel qui est animé de mauvaise foi il ne dit pas la vérité kooku manipulation moo ko tax a jóg mais vaar yi yaakaar naa ne su amee ay doom sax doom yi dinañ rus te moom war na am gàcce jàkkaarloo ay jabaram ak ay njabootam ak ay xaritam parce que mag du toog ci télé di wax ay contre vérité di inventer ay kàcc di koy teg ci ndodu nit loolu taxawul c'est une honte amul benn bokk yaakaar kooku on a discouvert ba parce que ñun dañoo respecté texte parce que Rousseau na nañu li li gën a rafet ci doomu aadama léegi euh, le respect aux lois qu'on est prescrites et liberté et nous, respectons la les lois et nous respectons la liberté des autres les uns des autres il a le droit maintenant d'affirmer mais que ces affirmations ne soient pas des inepties et de la galimatias mais moom li muy wax moom ci boppam psychologiquement xam na li muy wax ay kàcci la du dëgg liste Benno Bokk Yaakaar il n'a aucun problème de recevabilité et il est recevable moom il na savent il ne fait que manipuler manipuler ñoom ñu am problème recevabilité ñoom les politiciens encagoulés la ak seen yeewi ñoom nañ yeewi nit ñi ci magu yi am si biir yeewi bi yeewi ci boppam dañoo war a yeeante seen biir duñ dara seen intérêt kese moo leen tax a waaw